ko séddoo ñu ne nañ ñu ne nañ ko séddoo ñu ne nañ ko dagg bu dee fukki nit ñu ne nañ ko dagg fukki morso kenn ku ci ne bu jaayee du jar waaw dee su séddoo luñ bokk dañuy bokk luñ bokk bokk ko sàmm ak bokkoon ak sëñ Tuubaa wax na ni muy demee daf ne li gën a jafe ci àddina wal axu xaqan wal xalilu sidqa andaru min kulli qalilin xaqa mbokk dëgg mooy li gën a jafe mu ne mbokk mooy koo koo gestoo gis ko mbokk mooy koo xam ne waxtu wu ne day lor boppam ngir nga jariñu yow mbokk mooy koo xam ne bu la àddina tasaaree day lal mbalaanam dajalewaat la takk la ba nga diw say sëñ Tuubaa loolu ñi fi jëkkoon loolu lañu wax sëñ Tuubaa ne dolli naa ci man nag ne mbokk mooy koo xam ne da lay nëbbal say ñaawteef ndax bëgg ñu yëkkati la kon fun geestoo na ñuy gisante na ñuy gàddu sun lori moroom bu nu àddina tasaareetee na ñuy for morse yi di ko dajale na ñuy nëbbantee ñaawteef ngir nu yokk loolu it njariñ la loo xam ne war nañ koo jariñoo